ndax waruñoo yittewoo rek toog ca kaw nit ñi rek di nuyoo rek ku joxe lam am nga def ci sa poos bu dem jotee nga ni ko nii taflil ko mu dem déedéet loolu du ndigalul sëñ Tuubaa de addi ji bu leen ko bëggee gis nga nit ki ki yor sa wërsëg jur neexal fu ma koo man di ne dana la fekk jox la ko te du ko sañ a bañ du ko sañ bañ mukk delloo ko ci yàlla xamal ko ne yàlla la bind moo la moom moo la melal moo la kàttanal moo ma bind moo ma moom moo ma melal moo ma kàttanal xëy na nag nattoo na ma nga di ko yéegee ci man nu war a ànd dox jëm ci moom looloo nu boole leneen boole woon kon bis bii su dikkee lañu war a fàttalante muy dëgg akum njub mooy njàngaleem sëriñ bi nag lu ci baree baree baree baree bari noonu koy bëgg a te sàggane gi nag gënut te ci wet yépp la am am na ci ñi ñuy topp am na ci ñuy toppe te kenn ku ci nekk na kon war naa xoolaat boromam ndax bu ne wasul muridi tarkuhul iraada li wacci man yafalu ma araada waaw ndax nun ñuy toog dem nañ ba yëg ni suñ xol yi yàlla rekk a ci nekk wala déet nañ seetaat suñu bopp bu baax nañ seet ba xam nun te nag bu ñu xëyee ni may waxee waxtu ne war nañuy seet sunu bopp ba xam ñu ngi dolleeku ci yàlla waxam ba xam wala ñu ngi wàññi lenn dong nga mat a gi ci kaw suuf mooy xëy dolliku bëgg yàlla xëy dolliku sopp yàlla xëy dolliku gën a wóolu yàlla xëy dolliku gën a wakkilu ci yàlla loolu dong moo mat a sedd set saral sa leneen lu mën di doon day rékkiku ba mel ni lu musta am ci kaw suuf ndax ko la ci ñun bi ngay ñew ci kaw suuf lo fi indaale dara boy delu juroom ñaari metti perkaal dong lañ lay suturaale nga dem kon li fi ne fi nga ko fek fi koy way yalla ma ngay fekki te du fi jog mukk hayyun la yamut yalla momi rek momata mat xel ci ñun ñep kon bis bi su dikke kilifa gu man di doon ñay sos yow bu kenn bu ñaar la war nga leena jox bu wir wala nga leen yóbbal bu wóor nim berndeelante ci wàll sunu jaram nu ko raw lañu war a berndeelante ci sunu wàll ruux ndax lekk ak naan foo dem am na fa waaye nag dund yàlla kàddu guy dundal yàlla du loo xam ni foo dem fekk ko fa de kon nag nañuy fàttalante njàngaleem sëriñ bi lu ci bari mu ngi bëgg réer noonu mo te sëriñ bi nag bayu dara li nu war a jariñ lépp bind na ko jëf na ko waaye ñu bari mel ni man sàggan nañ bëgg nañoo nëbb seenu càggante ñi nu àndal ba tax boo waxee ñu ni sëriñ tuba rek ka fi nekk sëriñ bi nu mu fi nekke nan la fi nekke woon mooy gindi mbindeef fi mooy jubal mbindeef fi mooy teg mbindeef yi ci siraatal mustaqim loolu moom na fi Serigne Touba nekke kon bu ñu dajee ci bis bii waruñoo naxante waruñoo jaayante dañoo war a waxante dëgg dëgg nag faw day métti muy ci man muy ci keneen li ngay mën a jëfandikoo door koo mën a yóbbuloo mooy muñ kon nag kilifa yi war nañuy gën a takku ba dëgër ndax bu magal gi juk boy xol television yi waxtani fa tabarakallah ñepp dañ waxtani jangale ci bu waye li ñor deug moy taxawat ci fexe ba jangale moom yi ne ci xol yi moy li wér wër nit ñi diko jëfé buñ ko lambé ci ñom daj ko ba kenn ku ci nek fu mu man fa doon kay loolu moy li ñu wara fexé moy tarbiyatu ruhiyya ku ne xam na nit ki mën ta ñak ci mom yar sa bakkan sorel ko lépp lu yàlla gërëmut wattandiku bànneex wattandiku adduna wattandiku seytaane loolu mooy li nga xam ni kilifa genn bu ci nekk ak ñam ak ñamu njaboote yoon woowu la war a aw ñoom yoon woowu la war a jaar ñoom te xam ne ñoom ñëpp ëllëg danañ bokk taxawaat ci kanamu sunu borom subhanahu wa loolu sëriñ bi wax ne nun waxambaane yi suñu ragalee gàcce ñuy jiital xam ci jëf boo dajee ku mel ni Moodu Mbàkke mu sàggan nii rek nga ne ah man de na naa kon day man taalibu Sëñ te moom duxu duxluwut doo dem jotuwut Sëñ Tuubaa dara la ka jot ak Sëñ Tuubaa dara mooy ka fekk ka teg tànkam fu Sëñ Tuubaa tegoon tànkam mu ànd ak moom ngir yàlla kooka mooy ka nekk ca dara waaye koo man di àndal ku man di doon jàpp ni yaa ngi ànd ak sëñ Tuubaa sant wu mën na sant te tegu ci yoonu yàlla delloowu la ci yàlla yaa ngi nax sa bopp te la ngay def lu ci yëngu bari bari bari bari lu sa positif rëy rëy rëy rëy rëy mën dong lay doon lu tasaaroo kon nit ki sooy ànd da ngay seet ki ngay àndal waxtaane naa ko fii ba tàyyi sëriñ Abdullah dafa am ko waxoon ne ko mbaa du ngeen jaamu xërëm mu ne ko ah, ndax murit dana jàmm xërëm mu ne ko waaw waaw fekk koo xamante ni la sëñ Touba digle jëfu ko lam tere bàyyiwu ko nga de ko war warmaal ngir sëñ Touba wala nga di ko jox sa ñax ngir sëñ Touba wala mu la digal ngay def wala mu la tere ngay bàyyi loolu jaamu xaram la waaye nag foo fekk koo xamante ne sëñ Touba doon doxee ni lay doxee foo toogee ci jataayam ba jug dolliku ci yàlla dolliku ci fàttaliku ëllëg sa xol gën a root ci bëgg adduna sa xol gën a toroxlu kookee bu la digalee bul ko wutee ndigalu sëñ Tuubaa kon li nu war a njëkk a def mooy xam li sëriñ Tuubaa bind yoon yi ñu ko mën a xame bare na nit ki mën naa dem ci daara ja jàng su loolu weesoo ci moom mën naa fexe ba xam koo xamante ni tey ndax li nu wut adduna jaral suñu ko sàkku xam-xam jaralee rek ñu am xam-xam ndax kenn ku ci nekk soo lalay may yaa nga cay xëy yaa nga cay got xàmmewoo ci guddi xàmmewoo ci bëccëg xàmmewoo ca naaj ba lépp lu lay may adduna rek foo xëyee yaa nga moo ne adduna lépp luy dañ la te yonent bi li mu jàngaloon mooy gën leen liy des ci liy jeex liy des mooy ëllëg liy jeex mooy adduna kon samay bokki taalibe samay bokki jullit fuf lu waaye man di nekk ci biir réew ak ci bitim réew nanu bokk sax ci dëgg nañu bokk sax ci njub nañu bokk sax ci siraatal mustaqima xam ni jëmm Serigne Touba jëmmi yërmande yàlla sunu borom la ni nga xamante noonu la ko doon de ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamina rahma boobu yi mooy won gi ñuy won sira xam nga nit ñi fi ne tey bu nu defaroo ci li yonent bi indi ni mu diglee ñu jëfe ko adduna bi yëpp fees dell ak yërmande ak njub ak leer jafe-jafe yëpp it jeex ndax bu nee ab jullit kat mooy koo xamante ni jullit ñi mucc nañ ci ay loxom ak ay làmmiñam waaye nun nii nañ seet suñu bopp bu baax ba xam noo ngi lor jullit ñi suñu làmmiñ ba xam noo ngi lor jullit ñi ci suñu kàddu nañu seet bu baax ba tey leneen li mu wax ne al mu'min man amanahum naasu am amwalihim wa dimaihim mooy ki gëm dëgg mooy ki nga xamante ni jullit ñépp wóolu nañ ko ci seen alal wóolu nañ ko si seen dara doo toog ak moom mukk ba jóg di xalaat ni diw dana teg sama der bi lu dul noona doo teg fii sa alal mukk di xalaat ni diw dana ci jël dara wala dana ma ci jéem nga di ko defloo dara mu ci jéem a am lu mu cay lekk wala mu lay jéem a nax wala muy jéem a def leneen kon raxma boobu yi sëñ Tuubaa donde ci yonent bi njàngale mii buñ ci sukkandikoo yërmaande judut jeex la ca noonu ñaari yi ma wax rek muy muy ñaari xaddis yi rek jullit bu ne bu fexe woon ba du lor benn jullit ci làmmiñam du lor benn jullit ci ci ci loxoom yaakaar naa ne jàmm am jullit ñépp it bu ñu wóolante woon ci seen dara seen alal yaakaar naa ne jàmm su ko defee yërmaande day daal di tasaaroo ci kaw su loolu mooy njàngalam lislaam moom la ñu Sëriñ Tuubaa jàngalaat kon loolu yi war nañ koy fàttalante fu ñu toll bañ a yéemu rek ci mbooloo mu bari mi bañ a yéemu it ci dëkk bu rëy bi bañ a yéemu it ci leneen luñ fi mën di gis lu mën a doon ndax loolee kenn nit boo génnoon tey mën ngaa dajeeg milliardaire boo xamante ni man bu dee tabax la mën naa tabax lu mel noonu waaye sëñ Touba ñi mu yar fi ñu wuuteeg ñeneen ñi du ñoom mooy seen yitte ci yàlla ak li leen yàlla jaral kon nag kenn ku nekk ci noonu war nay góorgóorlu ci loolu bu baax ba bis bii tey su fekkoonte ni kenn ku ci nekk donte kenn moo aju ci yow su bis bi dikkee nga fexe ba. la nga xam ci baatu njub la nga xam ci baatu dëgg mu néew mu bari nga te ko ñooñu déggante ko ñooñu rafet naa njort ni nit ñi bëgg nañoo baax waaye ñu ci bari dañoo gisut ku leen wax dara ndax ka war a wàññi su bankeeb loxoom rek fitna tisaaroo fitna yi yaatu kon nag ñun ñëpp nañu maase xam ne Serigne Touba bëggam gépp mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ku ne xam ne ni yonent bi dañ bëggam gépp mooy lislaam ndax mooy li ko yàlla jox mu indi ko ci jàmm kon lislaam jooju yi nañ ci tënku nañ ci jàpp waaye buñ ca tënkoo te jàpp ca it buñ xeeb kenn ndax xamoo fooy mujj de bul ca gis sa bopp de bu la yàlla dimbalee nga ne ci njub sant ko moom yàlla waaye bul xeeb kenn ndax réer ak mujj gee tax gannaaw xamoo fooy mujj bul jàpp ni yaa gën kenn suñ làmmiñ yi nañ ko sàmm fu ñu xëyee nañuy settantal li ñuy wax lu ma nañuy xam li ñuy wax bu baax bari waa na lu dal doomu aadama ci làmmiñam rek mokk ko teg suñu xëyee nañuy seet li ñuy déglu nañuy xool li nañuy seet li ñuy xool ci suñuy bët nañuy xool li ñuy def ci suñu biir nañuy xool li ñuy dox ak li ñuy def suñuy làmmiñ nañuy xool li ñuy jëfandikoo ci suñ juróom-ñaari cër yépp nañu sàmm suñu pëy nañu sàmm suñu bët nañu sàmm suñuy loxo nañu sàmm teg suñuy tànk loolu mooy li war ndax gis nga lu ëdduna yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg li suñu borom wax dara du ci dañ lu toll ni dee dee ga mukk wa kulluhum atihi al qiyamati fardan dar mul ko randal ken nit mul ko randal ken ku ne da nga taxaw ak yalla ba japp ni yow dong dong dong dong ya ñu ne ñu bindon ci kaw suuf ku bayut xel lol nak lu la neex defal waye bis dana dik ken du la ko netti kiñ tak ay tank ma ki loxam diko yor ci bammel koku fa wetti ku ana naan kaay ma gunge la tey ku ci séenoon ak dee daw ba lay def ku ci séenoonu dee daw ba raw lay def bërki démb nag yi ñu yeew fii ci biir kenn ñi mu fa dugg koo wax mu ni boo demee nag yu song la kenn ñi mu dugg kon nag noonu yi doomu aadama bëgg bakkanam ragala ni dee te xam ni ci dee la jëm hmm, mat naa ba xel de am na ñooñ fu ñu koy waxtaanee ñu bëgg a daw duñ bëgg a dégg ko koy waxtaane sax waaye ci nga jëm lu nu ko bañ bañ bañ bañ bañ di lañ jëm te kenn munta tee nu àgg ci kon lu nuy war di waxtaane la bokk ndax dafa bokk ci dund gi ni dund amee ni la dee amee te suñ borom dafa wax ne xal-xal moo tawal xayaat dee la njëkk bind ci dee ci ci ci dund kon nag loolu mooy li nu war a ba xel dëgg dee dara la gënu koo dëgg te yonent bi dafa wax ne bàyyi leen naan bàyyi laa ne nag ñaari dee ak alxuraan waaye dee ni mu mën a waare doomu aadama kenn la ko keneen leneen munta waare noonu dee dong ngay toog xalaat ko ci sa xel lépp woyof ci yow fi saa sa amut leneen maa ngi koy waxtaane fii bërki démb bërki bi damaa dem fii ci armée Darou Salaam ku kuñ fa doon ñaanal am koo xam ne dama ne ko sëñ bi tee ngaa jege si ngir ñu man ko ñaanal bu baax mu ne ma sëñ bi dama am ngànt dama am ngàntal jege dara warulu ko lu mooy guddee gi ak néew bi rek guddee gi ak néew bi te léegi nag nit ñi dañoo léegi suur lañuy def waaye dencatuñ de mooy tax képp kuy dund neel ci sa bopp de bala ngaa dee ndax nit ñi moom ku dee fàtte nañ lañuy la ñuy njëkk xante woo bis bu ñu nee dog na na génn néeg bi lo amon ci méemal rek def nga ko ci bam lol, jekk lool ba rafet lool defar kër gi bam mu jekk lool mucc ayib lool waaye na dal di génn la ñuy wax gental nga ko muy gent boo xam ne duutul ca ti mukk jeex na keneen koy dëkk waaye duut do neew fañ ngay gungee téléphone yaa ngi sab-sabi kee ngay jël ma ngay yow xaale kat tegal ma ci nangam dolil ma ci nangam yóbbul ma fee nangam fàtte na ne moom kii ni muy def kii def na ko ko def bopp bu ñuy ne ci biir armeel yi sax dangay ngay dégg téléphone yaa ngi sonné kenn di làqu fee di seet di wootante ak a wax teewlu ñaanal la sax duñ ko def duñ bàyyi xel loolu Serigne Touba wax ni néew bi suñ koy denc di ko yóbbu day wax ñii ñi nga xamante ni buñ jullee rek ñu bañ kilifa yi nga xamante ni sax léeg-léeg ñoo war a taxawu seen njaboot. ci fi taxaw rek fi lañu tibul suuf rek talal ñaan tàllal ci yob dal di wàññeeku ñom delu seen kër waru ñoo def lool de ki ba lepp ba ñepp tànn la lu mu am jox la jox la bop ngir yalla ah nga war ko nga ba ci kër mu mujj war ko sang war ko sang taxawu ko defoo loola war nañu sétat doxin war nañoo seetaat dox yi bu baax a baax a baax a baax ñaari baat ñett ñu ñaan lañu ñaan bala ñu def dara nit ña daal di wàññeeku teewlu sax duñ ko tala def loolu dara jël ko seen bakk bu sa defee waxoon ni nit ki bu sa taalibe wàcceeb liggéey yaa ko war a sang xool ba xam sang nañ ko boo fekkoon sax nga am gànt ba néeg ko fa ñëw fekk ñu sang ko ba nuppi jullee ko suul ko dafa war dafa wax ne dang ko wara bo ci amé dara luy sikki sak ndax tégg nañ ko ci yoon wala deet bu sulli ga wessu dang ko wara sul sangat ko sangu ñu l'islam julle ko taxaw ko taxawin wir jibbal ko boromum jibbal wir ñu ñaanal ko ñaan yu wir waye légui so waxé rek ñu ni buñ ko dencé ci birab sangam rek taxé na fuñ ko tek señ ni ak ñaan dana jariñ ki dund dana jariñ ki faatu ki faatu lim gëna soxla moy pexem yépp jeex na mooy ak ñaan légui kenn dut ko teewlooti ci patam patam rek génn ca te yooyu yépp lu mat di bàyyi xel lu mat di seet la mooy tax kuy dund del bàyyi xel sa borom xamal li ngay jëf xamal li ngay wax xamal li ngay def bul bëgg ko la tag bu yeen bëggoo tag laa bu nu bëgg aw tag bu nu ragal ko nu nañ na fi yàlla te jeex ci tag yàlla kum teg loxo kenn mënu ci yow dara lu toll ni dee day we benn jàmm mënu ko ci yow yàlla lu na mu dal nu kenn nu mun ta tax loola dal ci sunu kaw lu mu namm ci nun kenn mun ta dox digg suñu digg ak loolee loolu mooy pas-pas bi wër a wér ci nun mooy bi wër a wóor ci nun waaye bëgg ku la tagg nga xam ne yow ci nit ñi rek ngay sukkandiku buñ la taggee nga yokk la nga doon def buñ la tudd nga taxaw buñ la ŋaañee nga nga daw mukk bul xool li nit ñi bëgg xoolal li yàlla bëgg ndax yàlla moo la fi indi yàlla moo la bind yàlla moo la moom yàlla moo la melal yàlla moo la kàttanal te yàlla moo la fiy jëlee gannaaw booy dem sa jëf dong nga lay gunge sëñ Tuubaa wax na ko bu leer nit ki su génnee àdduna rooge la yàpp yaram wi yax yi alalam ay jëfam alalam moom ba ruu ko dogee la ca pare ña koy dond suñ boroom na leen jël leen mu neex ko mu naqari ko bokk yooyu bu ñu lay gunge ci buntu bàmmeel bi dong la ñuy yem kenn ku ci nekk dellu këram ñoddiwaat lalaatub lalam ba mu jekk mu tudd fàtte nañ la sa yàpp yaram wii sax yi ne ko fuuf lekk yax yii suuf si ne ko fuuf lekk nga des faak say jëf kon jëf joo jii nag nañu fexe ba teg ko ci li yàlla bëgg te bañ koo teg ci li neex nit ñi gis nga nit ñi kenn nu munta am seen ngërëm kenn nu munta mucc seen mer gannaaw yàlla mi leen bind am nañu am nañu nee nañ ko du yow yonent bi am ñu ne ko fenkat nga waxkatu lu deug nga seigne touba taxaw ñu ni mu kat la yonenti lañ waxon yonenti yep ñu wax ko ñu baax ñep yow nga japp ni war nga man am ngërëmal nit war nga am seenu tag ku gattu xel man de sa der man ci sa walu bop la wax de xena lu nit lu way neex boy bo waxam mu jëm si man jéggal naa la ngir jëm yalla te top ma kenn dar man dal sama ayu bop doyna na ma nu def bam deñ seuk man daal nu may def ba fu ma xëyee di gën a bëgg yàlla rek neex na ma nu may def ba su ma xëyee di gën di wakiirlu ci yàlla neex na ma man daal loolu dong mooy sama xemmemtéef ci kaw suuf nu may def daal ba fu ma xëyee di gën a bëgg yàlla rek di ko gën a sopp di gën a wakiirlu ci moom fas yéene nag di liggéeyal sëñ Tuubaa ci lislaam rek nag amatuma dara lu ma soxla ci kaw suuf kon nag ne foofu yéen te bu leen fi jóg buñu ragal kenn ku yalla, buñu yaakar kenn ku yalla buñ bëgg kenn ku yalla buñ wolu kenn ku yalla yalla ma ta bëgg na sëñ abdullah xat waxoon yàllaa ma ta wóolu yàllaa ma ta yaakaar ndax fekk sa morom damaara nga diko yaakar yaakaar da ko bëgg toñ tooñ dong fekk ku dul yalla nga bëgg ko yaakar moy bëgg fekk neegu jargoñ nga bëgg ko defu néeg boko ko settante da nga xam neegu jargoñ tu néeg kon nak nanu bok delu ci yalla ñepp xam ak ngëm yàlla day yokk day wàññeeku ngëm yàlla li koy yokk mooy jaamu yàlla fonk julli juróom fonk jàng alquran fonk tudd yàlla te di ko teewlu te di ko di jóg fajar loolu yi nañ koy bàyyi xel kenn ku ne ndigal lañ ko jox foo man di ne del sàmmante wu ndigal yi yenn màggatu ci ndigal du ma gadde japp ni lawra diñ la jox man nga ko tek fi suuf dedet nit du la jox du xam sab non. xam nay li neewal doole non. xam nay li koy ray mu jox la ko nga tek ko fi suuf defe nga mucc ca ba ndax nga sa bop de sag ni tud yalla xalaat yu ñaaw di ñew ci yow yene ñaaw di ñew ci yow ba mu ci ngay wax lu wurtu wax di dem fo wurtu def di dem fo wurtu dem di def lu wurtu def dem ba del fa nga nekkon tuddo ko lu koy waral bayyi lañ la ne ca leneen njàngom alxuraan mii ñu leen digal dee leen ko def fu ngeen xëyee lu mu néew néew néew dee leen jàng alxuraan lu mu néew néew néew bu leen xëy mukk te jàngu leen ko nooru daa reen yi ñu leen digal ngeen di ko jàng dee leen ko jàng lawraa yi ngeen di def subaa ngoon dee leen ko def muy mu sabaatu xasara keneen ku man di doon digal lañ ko jox na koy jëfandikoo loolu mooy dox suñu diggante ak seytaan sëñ Tuubaa ngànnaay yi ñu war a xeex ak suñu noonu yépp dañu ko tegal buñ ko fa waccee nag defin danañ mucc dañuy nax suñu bopp kat mu nu war a wax lépp wax nanu ko bu nu amul dëgër bopp keneen ku nu bëgg a yombaleen mbir yi danoo bëgg a xañ lu baax àllaaxira gën a jafe àdduna gën a yombi mbir fop te kenn ku ci ne ñu ci bari seenu sëriñ buñ lañu fonction ya ñu nekkee bu ñu ne leen baleen ñu lànk ba tëdd ca naaj na sëñ bi damaa bëgg xañ sama teraanga ngay àdduna kon nag bu la bëggee yombalal àllaaxira nga nangu ko dangay nax sa bopp dong te nit nag du nax boppam ngànnaay li ñuy xeex ak adduna sëñ tubaa wax na nu ko ngànnaay li ñuy xeex ak bakkan sëñ tubaa wax na nu ko ngànnaay ñuy xeex ak bànneex tubaa wax na nu ko ngànnaay ngànnaay yi ñuy xeex ak saytaane wax na nu ko ni nu war a àndeek suñu borom wax na nu ko ni nu war a suñu morom wax na nu ko kon nag bu ñu dajee ci bis yu mel nii kenn ku ci nekk nay góorgóorlu tey farlu jamono ji nag ñu ëpp ak mën a yem doxuñu te bëgguñu ko dox di wax loo xamul dara di wax lu saw yoon nekkut mën a toog wax ci nit loo xamante ni ku ko dégg mën a génn ca kooka te la ngay wax dara du ca dëkk bari léegi lool ci jamono ji te tegoo ko fenn lu may ci sa bakkan ak sa bànneex dong mooy tax nit ñi képp koo xamante ni yaa ngi def lu la nit wax nga gëm lu la nit wax nga jàpp da nga dugg ci kàmb goo xamante ni du la ci mën a kenn du la ci mën a la ngay jàpp ci nit wala la ngay bàyyi ci nit na ko nit ki jëflante ak yow loolu mooy li gën a wér loolu mooy li gën a wóor ndax nit nit ku baax amee nga xamante ni soo déggee kàddoom mu jeexital ci yow ci leer muy awliyaa ullaahi noon la awliyaa sheytaan amee nga xam ne boo toogoon ak ñoom buñ la waxee kaddu ko faw mu jeexital ci yow ni nga xamante kaddu nit yàlla noon lay jeexitale ci xol kaddu seytaane noonu lay jeexitale ci ci xol yi su ko nit ki bàyyiwul xel su ko nit ki bàyyee xel nag buñ la waxoon ci nit lu ñaaw doo ca jàpp dara da nga naan kooku ëpp na loolu dee rafetal sa njort ba faw ci doomu aadama yépp te yàlla rek tax bul xotti sutura kenn ba yàlla di xotti su sutura ëllëg ci kanamu mbindeef yépp yërëmal ñépp soo bëggee yërmande yàlla ëllëg deel jéggale ak tooñ soo bëggee njéggal ko suñu borom ëllëg deel jëllale ak tooñ boo bëggee suñu borom di la jëllale say tooñ ana ko fi du def lu nakare yàlla ndax beug nga yàlla xott ci sutura bul xott sutura kenn kenn ku nekk am nga ayib sa ayib na la doy wadis ayibi kenen fexee la set bala nga fay génn adduna yowma laa yanfaxu maalun wala bannoona illa man ata allah bi qalbin salim ëllëg kenn munta muccu te balé fofu xol bu muccu ci lépp lu yàlla gërëmut loolu war na no doy soxla waris ñu nekk ci te jàmbur rek problème mu jàmbur suñu yoon nekku ci nañu fexe sunu ruu set ci li yàlla gërëmul nañu fexe ba mucc ci rasailal xalam ci rëy njistal wax lu du dëgg jëwu ràmbaaj jëf di ko tudd wala ngay bëgg ñu di ko tudd wala ngay jëf di ko ñaw di ko naw yow li nga jëf ci lu baax liñ jëf ci lu baax ak kus niw ñu ndax yàlla nangu na ko wala déet nga bëgg a gis sa bopp foo ko rek ndax sàggan ba mel ni man li ngay góorgóorloo kus néew xamoo ndax yàlla nangu na ko nit ndax lu ne yaa ngi ko ca boole yaa nga cay boole di wax nit ñi xamoo nit dana def ab safaan du ca am dara ndax nit ñee ko koy gàddul nit dana def lu baax te du ca am dara ndax nit ñi la koy joxaat ëllëg soo bëggee jaamu yàlla sàmmal say cër te nga rafetal jaamin wa te yàlla rek tax waaye léegi di wër di yàq nit ñi yàqin woo xamante ni dem na doy te doo ko teg fenn ci ludul sa bakkan ak sa bànneex rek bu ñu waxee yii kooku ko xamul rek man xam naa ko te li ngay wax dara du ci dëkk dara nga ko xamulut yaa am sa yàqu bopp képp bari ayib ba mel ni man dong loolu ab jullit wuru ko def ab jullit buñ tuddoon ci sa mbokkum jullit ab safaan te nga xam ko sax la nuppi ca yow loolu lu ci soyoon digganteem ak boromam la yàlla mën na koo jéggal yàlla ma ko seetaan ca loola te yow yàlla ma ko seetaan ca loola boo liggéey mën na koo jéggal ndax dañoo wax ne yàlla ëllëg dana woon nit ba sës ku rikk ne ko diw defoon nga nangam defoon nga nangam defoon nga nangam defoon nga nàngam ci àdduna mu ne ko waaw wow mu ne ko na mën a suturale woon ci àdduna noonu laa lay suturaale fii ci àllaaxeer kenn du ko yëpp kon nit ki dafay ñaan sutura su boromam loolu mooy li ñu war ñaan dund bu sotteegut nag lu ne xaj na ca weeru koor feek dug jotut juubu weesuut bokk na ci liy waral mujj gu ñaaw ñàkk sant yàlla ci mu la taw feexalee xéewale la nga gëm ko yàlla bu nu dimbalee nu gëm ko war nañoo sant cant koo xamante ni war na am fu mu tàmbale waaye amul fu mu yem mukk fu mu yem kon nit ki la koy may mujj gu rafet ca la war di xëy ca la war di gont loolu mooy nangoo jaamu yàlla te rafetal jëmale ci ñëpp doo wax kenn lu ñaaw doo ko jëflante kenn doo ko seede ci doo ko seede ci kenn it ku man di doon lu rafet ngay seede ci moom lu rafet ngay wax ci moom lu rafet ngay jëflante moom te nun ñëpp day bu kenn ku ci nekk fexe woon ba na nga bëgg di ko jëflante yow noonu ngay jëflante doomu aadama yi rek jàmm bare kenn ku ne na fexe ba nam bëgg doomu aadama yi di ko jëflante ak moom mu di ko jëflante ak doomu aadama yi loolu mooy li war nun ñëpp it nu maase bàyyi xel ni ku ne la yàlla bind ci sa ci sa jë ci kaw suuf kenn mënu koo xañ ci kaw suuf faw nga jot ci te yàlla nag dafa bari ay sew sew lool ba sew sew yi dem na doy mooy tax nit ki lépp lu mu gis rek na ca am ak maandu ndax sunu borom boo demee ci silkul jawaahir sëñ Tuubaa dafa wax ne Sayyiduna Muusaa waxtaane naa ko ba tàyyi da doon laaj suñ boroom won ko ay kiimaanam suñ borom dem làqloo ko ci ab benn dex bim làqtoo ci dex bi bi mu toogee gis benn ku war borom gawar ku war aw fas dikk bi bim bëggee aw fasam naan dem waddal fa kalpe boo xam def na junni dërëm bi mu demee ab xale bu ndaw ñëw naan folkar pa dem bi mu dikkee bi mu demee benn silmaxa dikk silmaxa bi nan di jàpp kookee fàttali ko ne sama kalpe bi dafa réeroon bi mu ñëwee fekk na xale bi ko far dem na seen maxa bi dafa fekk mu ne ko yaa ko jël mu ne ko man jëluma ko man gisuma sax samay bët gisut ba may mën a gis lu may fab mu wisut ko gisut dara mu dog bopp bi seyduna Moussa ne ah man nag sax muñ fii li mën a yem suñ borom di ko ko leeral ne ko gawar bii waroon fas wi dafa liggéeyloo bàyyi xale bii ba amel ko junni dërëm te fayu ko kon junni dërëm yii fi rot xale bi for ko xale bi jot naa xam waaye silmaxa bii laata muy silmaxa dafa dogoon bopp bàyyi kii loolu tax kii dog boppam loolu ku ko mën a lijjanti kon nag sew sew yi suñu boroom di def ci jaam ñi noo gis ndax gis ne nu nit mel rek sunu borom la gannaaw nag nu nit mel suñu boroom la nit ki nay am ak maandu nit ki nay am ak rafetal ndax leg leg kan nga dal nit te do xam liko dal luko waral doa xam liko dal luka sabab te fek mbir la kon nak nanu lu bu baax nanu farlu bu baax te yalla rek tax ñu ñew ci yene denkante yo xamni hadithul qudsi la suñ borom dafa wax ni yeen doomu adamay na ngeen ma sakku kem seen aajo ci man manam kem nun ni nu wo yalla nañu ko sàkke noonu seet leen nag nun li nu aajowoo ci yàlla waaw sunu noy gii ñu noy muy oxygène bi rek su ko suñ borom téye woon nu nuy def ah waaw ndax woon suñu borom bàyyi na suñu bët yi ñu man di gis ndax aajowuñ suñu borom bàyyi na suñu nopp yii nu mën di dégg ndax aajowuñ suñu borom suñu ñaari loxo yi mu bàyyi na ko ñu ciy man di def suñuy aajo ndax woon sunu borom suñu ñaari tànk yii mu bàyyee nu ko ndax aajowuñ suñ cëri biiri ak suñ cëri biti yi kenn ku ci nekk lam ca soxla suñu borom bàyyee la ko ndax aajowuñ loolu kon nag nañuy jëfal yàlla kem ni aajowoo ci moom kenn ku nekk ci nun am na lum aajowoo ci dunduk addunaam am na lum aajowoo ci dunduk alaxiram kon nag loolee kenn ku nekk ci nun nay jëf nay yàlla kem aajoom ci moom waaye nee na it na ngeen ma mooy kem ni ngeen ma ñu mën a muñe sama sawara képp koo xamante ni yaa ngi xool loo wër te xool xoolal ba xam diir ba sa bët am ca loolee yàlla gërëmut ndax mën nga am diir booba ca safaanu aljana képp ku bëgg a jël sa loxo bii di ci def yàlla gërëmut seetal ba xam diggante boobu ca sa sa loxo di ca nekk diggante boobu bëgg nga sa jëmm dugal ko ca safaanub aljana kenn ku ci nekk soo bëggee diglu lu yàlla gërëmut seetal ba xam diggante boobu yi ngay diglu lu yàlla gërëmut bëgg nga ko def ca safanam aljana képp ku bëgg a toog ci jataay bu yàlla gërëmul seetal ba xam diir ba ngay def ci jataay boobee bëgg nga diir boobee nga def ko ci safaanam aljana képp koo xamante ni yaa ngi njaalo wala ngay def lenn lu yàlla gërëmul ci seen cër seetal diggante ba ngay nekk ca loola ndax bëgg nga koo nekk ci safaanam aljana kon nag nañu ma yàlla kenn ni mu mënee muñ ci safara kum ci tay ji day ku fekkoon lu tang bu ko solo xal laale rek tup na bu ko sa tank laale nag tup na fa sansa waxuma laa nak sa waraw nga xamanteni ni jaarale nañ ko ci nangami ki ray dor ko indi ci kaw su mu melni mu mel kon nak kep ko xamanteni ni nga xol yalla yàlla wala nga di deglu wala nga di ko jëf ci say loxo wala nga di ko jëf ci cër bu man di doon mu muy yalla setal kem na nga meuna muñe bu la yàlla dugaloon ca muy bu len xol ci bàyyi gi ma len fi bàyyi te jëlu guma len de jox la wér te dugul guma ci yow ak ràgg bu xol lol de nekkal gi nekkañ ci aduna na bu mu war mukk te buñ ko xol lol lañ suñu borom digal ci hadith xutsi qudsi ndax nekkandi fi rek tax nga defini war nga nek sa bakkan war nga nek sa banne war nga nek ci leen neex fotol bi yagal guddu fan déedéet dudde non waxtu wala bakkan démb dong am na ñu doon dund ci waxtu bi te tey ji waxtu yi fekk nañu ci biir suuf fii may waxe yéen am na ñuy xar-xarale wala fanaan ji àllaaxira te xamuñu nun ñi danañ fanaan ak duñu duñu fanaan kenn xamu ko ci kon nag bu ñu xool ci loolu yi wërsëg wi nu yàlla jox mu teewit bu mu nu war de am naa kër gu rafet da xëy génn ko dong am naa wata bu rafet day xëy ràpp am naa mbubb mu rafet danga day xëy ràpp sama salon sama kër lu mu man di doon soxna njaboot loo man di am fonction boo man di téye moom la war mukk loolu la yàlla wërsëgale dana xëy jël ko bu dee daraja la dee taar la dana xëy nangu ko ba mel ni mu soo ko am bu dee wér la dana xëy dana xëy nangu ko ba mel ni mu soo ko am lu mu man di doon yàlla lu mu la dim dénkaane dong la ci loxo la jaaru mi sa loxo dana jóge sa loxo dem ci yeneen loxo sunu bàkkaar yi ñu dëkkee di ko defit yàlla duñu suturaal ba mu nu war de nekk ci bakkan ak bànneex yàlla duñu suturaal rek nga taañaañang rek te tuub te jéggulu ah lam cay teg bul xam de ndax kullu shay'in haalik illa wajha loolu hukmu ilayhi turjaun lu dut moom day deñ ku dut moom day deñ fu dut moom day deñ te lépp ci moom lay dem moom yàlla lépp ci moom la jóge lépp it ci moom lay dem suñ borom di wax ni yow doomu aadama jëfeel ni ma la digale li ma la digal topp ko bu ci nit ña nekkee ne ca buñ ci nekkul nekk ca bul wut àndal bul wut bul wut kulub mbi ci lu baax yàlla dum la fi indi ni ma koy waxee waxtu ne yow dong la del li yow dongu la ñi nga fi fekk li ñuy bari bari bari da nga leen fee fekk ñi fekk la dañuy dem bayyi def mbaa nga dem bari kon ni la yalla digale defeel defal li la digale bu ci nit ña nekkee nekk ca bu ca nekku nekk ca bu ci sa bakkan ba ko sa bakkan bañay nekk lepp lu mu la téré bak ndax nit ki kat lu mu bëgg te yóbbaale ci lam na koy te li ko jëf de loolu sëñ tubaay di ñaari biir am suñu biir bop ak suñu biir bàmmeel sa biir bàmmeel bii loo ci defut doo ko ci fekk sa biir bopp loo ci defut suñu borom man na la ko ci defal ndax suñu borom daa bind lépp ngir doomu aadama bind doomu aadama ngir boppam kon nun yàlla rek lañu war a yittewoo waruñu yittewoo leneen waruñu yittewoo feneen waruñu yittewoo keneen mu ni yow doomu aadama foo toll yaa ngi wax wax ju rafet say jëf yées ba mel ni jëfi Moodu Mbàkke nanu góorgóorlu ba li ñuy wax ñu di jëf ta yalla rek tax ku ne ci noonu nay nat waxam muy dëppoo xolam ndax loolu képp ku koy def rek mooy kilifa ak nafiq yi yàlla noonu ci yàlla lu sax rafetal sa biir lool te sa biir lool muy naa boo ci dañu dañ fa ni ñu rafetale sunu col ba rafet lool fexe ba boo dem foo ñu man laa xool laal sa parfum rafet bu dee jigéen ji buy génn maquillage faaru bu ne mu def bu dee góor gi la mu sangu ba set wàññi mu taasam wàññi sikkinam defar ba mba defar ba tabarkal laal parfum ak lépp bëgg foo dem ñu ni tabarkal kii day gani laam bi kii day mbasin wiisam bi kii day palmaanam bi kii day rombalam bi kii day nangam bi fekk sa xol bi nga xamante ni mooy xooluwaayu rabbul xisati dara defoo ko ca fu xoolee rek maa fekk na loolu rek lañ war a yittoo xol bi moo war a baax moo war a jag moo war a defal moom dong la suñu borom di xool ci ñun xoolu ci ñun leneen mbubb yu rafet nit ñi koy xool dem ba leen fi mbaa ñu dem bala fi yàlla mii suñuy xol xol boobu bii nga xamante ni mooy xooluwaayu moom mi ñu bind moom nu melal nu kàttanal nu nañ ko defar ba mu set sooy am gan rek bay buy buy ñëw nga wuti lal bu baax teg matelas bu baax teg darab ba nga gën a fonk teg seet ñam moom gën a bëgg nga teg lu ne nga soxla yàlla mi la bind moom la melal la kàttan la defal la lépp na la soxal bi dong laa soxla ci yow sunu moroom yi jaam yi nga xam ñépp a doye bi ba mel ni man ngay wut leen neex ak wut ñu lay jay ci taar ak loo amee leneen ak leneen loolu dara jëru ko ci noonu yàlla moom mii rek lañ war a defaral sunu xol yi mu dëkk ci ndax loolu moom war suñu bopp rek la ndax ka gën a rafet mbubb ka gën a rafet kër ka gën a rafet wat rafetu wata yenn njaag ji dong la seen suuf si dong ci la ñuy dugg nag boo demee ca armée doo xamee borom taar bi doo xamee borom aman doo xamee borom leneen kañ tabaxal ba mu ni séng tabax bi daara la ko jëriñut xam nga lu koy jariña jëf jëm nekkaale ci biir ak la mu doon jëf dong baraana bàmmeel buy tawte te kookee lu mbax wax yàlla yàlla def baraana bàmmeel boo xam ndox du ci dugg mukk rubba xabri muy saro saaxiboo fi naar bare na bàmmeel ba ñuy siyaare te borom a nga ca sawara yow doomu adam doo tabbi aljana mukk ci lut ngay toroxlu ci sama màggaay man yàlla yàlla rek màgg yàlla rek moo yàlla rek moo yooyoo màggal ndax moo nu defal lu nu kenn defalut xamoo xéewal gu man di jaarale ci doomu aadama lépp ci yàlla la bawoo seen Tuubaa li muy réy réy réy ñu di ko bëgg di ko sopp di ko yaakaar topp ci gannaawam lu man di am yàlla ko ko jox joxu dara boppam yonent ci bay jëwrinam defalut yàlla mu def ko yonent yàlla dong la sopp kon lépp yàlla la lépp yàlla ci mooy tàmbali bi mooy yemuwaay bi kon màggam googu yi lañ war a toral te bëccëg yépp ñu di ko dog ci tudd moom yàlla yaa allahu di ko tudd ci turam yu sell yi waaye di ko fàttaliku ci jëf yim jëf ci noonu ba wa ba ñu war a àgg lépp lu ñu gis rek gis ko ca moom yàlla foofu lañu war a toll fu ñu fu ñu di ko fàttaliku ci bëccëg yépp ba lépp luñ gis gis ca yàlla lépp lu dégg dégg ci yàlla lépp luñ làmb daj ko ci feeg egguñ foofu demaguñ fenn nu fegal sunu bakkan ci bànneex yi ngir jëmm yàlla war a xool lu neex sa bët nga ne ah sa bët bii de li muy gaaw gaaw gaaw bëtu rabbal xisati moo ko gën a gaaw dara du ma jaral xool lu gërëm yow boo bëggoon a def lu dul noonu képp sa moroomum jaam doomu du ñëw nga ni bay nag daw làqatu yàlla mi nga xam ni bëtam bee ngi ne càkk di gis bëtam boobu yi lan war a xool ngir moom ngir màggal ko ngir wormaal ko képp ku tumuranke nga fat ko képp kuy aju ñàkk nga dimbali ko képp kuy jirim nga teral ko ba mel ni bàyyam bi ko jur bu dee ku soxnaam génn ak adduna la nga taxaw ko ba mel ni na ko borom këram doon taxawoo mu ni képp koo xamante ni aw meloom nii ma ko waxee ni la mel fu ma ñaane mu wuyu ko man yàlla te lu ma ma jox ko mu ne yow doomu aadama nun lay waxal de dee mooy wi ñuy suñ secteur yépp gis nga nit ki heure bu tàmbalee ci xar-xarle xam di rot li mu wees ci àdduna lépp danaan ko jàkk di gis la ca baax lépp mu di ko gis la ca safaano baax lépp mu di ko gis fi mu jëm fépp it war cee jaaral ci àllaaxira muy gan loog loola te su boobaa dëpp weesu na de dëpp mënatut a nekk dem rek waaye dëpp mënatut a am su boobaa nit ki dana ricc ricc goo xam ne <coughs> du ricc gu nuy misaal ndax nag ña koy riccu dañ fee dikk gudd ba misaal lu riccu ga bañ man koo xam moo tax kenn mënu koo misaal kenn ci jaaragul ndax nun jaaragunt waaye nag sa lisaanu xaal mën na la caa mosal li nga gën a bëgg ñëpp ñi nga gën a bëgg ñëpp nga di leen woon gannaaw te dootu leen gisati moom mu ne waaye ëllëg yowmal xiyaam lañ sa say xabaar yépp nit ñi daañu ko xam yawma tubla sarair ku ne ñu xam yow yaay kan xam nga fii la coow li bare kenn ku ci nekk ne saa waa jeex man kenn ku ne ne fi mu ne kenn xamut kuy waaja ndax kenn ku ci nekk sawaay màndi la ku ne sawaay màndi la ku ne sawaay màndi na la ëllëg nag kenn ku ne danañ xam yow yaay kanam te ku ne la nga doon jëfit di ko nëbbu danaan fang na ñëpp di ko gis dara du nëbbu su boobaa ndax amul aw tund amul miir buy kar genn kenn ko ci nekk da ngay gis da ngay gis ko solo ba jekk macha allah du tiit du jàq du rafle nga gis ko mbubb dong lay sol nga gis ko tubay dong lay sol nga gis ko xam dara du kuuri wala yasubillah te loolu lépp ci kanam la ne xam nga li ñuy waxtaane lépp dafa nekkut ci gannaaw moo tax ñu war koy baxel da ngay gis ñoo xamante ni nag lab nañ ci adduna lab yi woo xamante ni dara mënatu leen a dellusi seen genn wàll bii bu deewal genn bi du dund it dootuñu jàng jeex na dem nañ ba jàpp ni li ñuy def ci adduna sax lu normal la lu jaadu la ndax ñu amatuñ benn yëg-yëg ci yàlla amuñu benn yëg-yëg ci diine nañuy dunde daal nam leen nañ sentir seen dund rek noonu lañuy dunde boo ko doon wax loolu ab jullit du ko def te dara jëru mu ni mbugalit mooy xotti say sekkare ëllëg boy def bakar, bu ñu bakar bu may def bakar bu ndaw la de defuma bakar yu magi gis nga bakar lu tut tut tut day ñod di benen ba di ñod di benen ba ba nga dem ba àggat fo xamanteni ni duutu mën a tey dëpp kon xeesu billah waaye lu baxé lo ci tambali lu mu tut tut tut da ngay dem ba mel ci no xamanteni sax dalay jaaxal xamo nit day dem ba jang alquran duutu doyal nit day dem ba tut yalla duutu doyal nit day dem ba jataay bu ñuy tudd yàlla fu mu bu sañoon foofu rek lay ne noonu it ngay gis koo xamante ni fu ñuy tudd yàlla du fa am da ci tàyyeel day mel ni dañ koy fatt day mel ni dañ koy lëjël bu ko jàppoon ci day daal di randal dem fa bànneex ba ne bu ko déggoon fi béréb du ko jaral jug dem moom daal la bëgg rek la muy dégg daal mooy la ko neex ak bakkanam ak bànneexam waaye bis dana dikk boo xamante ni da nga ne woon si yow déglu la la jariñoon ci àdduna ba nga mën koo jëfe te yàlla tax mu ne bu ma la wërsëgalee wërsëg bu néew bul xool ci néew wërsëg bi waaye xoolal kii la wërsëgal xam ne lii mu la jox am na ku ne ko siiw te jutu fu waay ak lu am am na ku ne ko siiw nun koy nuudu doylu rek yow mi defe ni amoo dara ci àdduna tardé naa am na ku ma doon wax ne ma man sëñ bi daal fii ma toll ci at te gis naa ni réalisé bu ma dara ci àdduna ma a ko ah am ak ñàkk wéesoo bu ci yow de daa xamut la ma am waaye wér goo jaamoo yàlla rek doy na loo bëggati yàlla def na la ngay ëpp jullit def la ngay murit bu bëgg yàlla te di ko jaam loo bëggati nit mën naa am lépp lool am na ko nit tëdd ci lalu bàmmeel tëdd yori milliard lalu hôpital yor ay milliards bu dani siiw ñàkk lépp tëjut biiram dong kon bu kenn xeeb na la yàlla xoolal ci sa kanam bul xool ci sa kanam gone dong lay jur ak ñàkk sant yàlla bul xeeb bàkkaar bu ndaw ndax xamoo fan lay mujj ak yow bul wóolu mukk sama pexe ndax sama pexe kat moo gën a nëbbu xorandoom buy dox ci lëndëm gi gën a tar ci kaw suuf ndax xéewal boo gis rek pexem suñu borom nga ci boo ko ci bàyyiwut xel taarak juddoo alal ak jaamu yàlla xam-xam ndax am na ñoo xam ne am nañ xam-xam ba defe ne koo mut xam-xam ñu bëgg laa xel diw jàngut ah diw xamul dara kooku am jàngum suñu dafa bari solo rek xam-xam bu bari bu mu la war xam-xam lu mu bari bari bari bu la bijjuwut jëmale ci bëgg yàlla sopp yàlla wóolu yàlla jaamu yàlla ragal yàlla amul benn njariñ naanal téere yëpp ba mu jeex dàqale maxaarijul xuruuf ñëpp dàqale tajwid ñëpp fekk ak góo ci sa xol bii nooy ñëpp ci yàlla du la jariñ dara moom wax amul benn njariñ xam-xam bu la dolliwul ak ragal yàlla dolliwu la njub dolliwu la alaxira gënal la ci àdduna dolliwu ak woyof dolliwu ak wàcc sa bopp amul benn njariñ xam-xam bi am njàngal mooy bi lay xamal yàlla beneen gudd moom rek amu solo mu ne doomu aadama heure boo mooy mooy fàttalikul sama mer yàlla nu yàlla musal ci meram mu ne ndax ndax joxe nga samay farata yi ci yow ni ma la ko digale na nga suñu bopp bu baax bu julli jotee luñ jàpp nañ ko bàyyi te julli ci julli fardul xay ni la benn jullit mënu koo gàddu moroom loolu nañ ko ba baxal bu baax sëñ Tuubaa nee na fi ñuy dekkee ak fi ñuy dajalee diggante bu soree la ku dul julli malayka yi sa bàmmeel lañ lay fekk boo dekkee jàpp sa tànk càmmoñ sa tànk dañu dili dili ba foofu wala iyaasu billaah waaye nag julli fooy lu lil musalliina it ñi nga xam ne julli na ma wàcc rek la ñuy julli su waxtu joxe daal patam patam nañ rek ba génn ca loolu du ab jullit du ko def ab jullit boo tàmbalee di jàpp di raxas sa cër yéeneel sa cër sa loxo yi sa kanam gi sa bët yi sa sa làmmiñ sa nopp yi lépp li ko tàmbalee ci laab rek sangu farata fu sa fu ndox mi romb yéene ca yàlla setale la noonu ci ay bàkkaar solal si yére yi gën jekk yow booy dem ci xewu adduna képp di sol la nga gën a bëgg di déyaale ku toll ni yàlla bàyyiwoo ca xel dara te buñ ne la kat buur soxla war na la tey xeeb nga sax sa yére wolof kat da ngay costume ko karawaatoo lu ne nga def laal sa parfum lu ne nga sol dalay jaral sax dem luy boo yor boo yorut yére yu baax sax nga dem ko sol daal lu ne nga def ko booy jëm nag ci julli benn paar doo ko ko jox do xalaat ni sax yaa ngi jëm ci ki bind moom la mel la kattanal la loo am lu ne mu jox la ko te kenn ñu fekk ko ci kenn dimbaliwu ko nga war booy jëm ci moom war a ànd ak mbégte ne man de maa ngi jëm ci yàlla sunu borom maa ngi war a ak tey jii ki ma bind te moom ma ta melal ma ta kattanal la boo ne allahu akbar lépp woyof ci yow mu meli dara amut kudd dul moom dara nekku it lu dut moom dara it lu dut moom suñu borom noonu ab dunde nga tàmbali ci alhamdulilahi rabbil alamin boo ne alhamdu rek xeeti cant yépp dugg nga gis lim la mën a lépp te mënaloo ci sa bopp dara defaloo ci sa dara nga ne ko ah, ngi la koy de xam ni moom moom def yépp loo fi gis rek borom ko ba ni ngay ñëwee ci arrahman arrahim maliki yawmi diin moom mel ni saa taxaw na ci yow fi nga taxaw kàbbak di julli iyaaka na'budu yow dong lay jaamu te du ma la booleeg kenn du ma la booleeg lenn du la booleeg fenn ndimbalit ci yow dong laa yaakaar ci yow dong laa koy sàmm kon nag nanga ma gindi teg ma ci yoon wi nga xam xamante ni mooy yoon yu jub pacc te benn pakk nekk ci ne mooy yoon yu jëm si ci yow muy yoon wi nga xamante ne ña ca jaar da nga leen xéewalal walis yoon wi nga xam ne ña ca jaar da nga leen buggal kon farata yooyu nañ koy joxe ñu ni ko suñ borom diggale mu ne ndax dimbali nga miskin yi booy sarax yaa ngay sarax ay juróomi dërëm ki ñaari fukk ki fanweer ak ki ñeent fukk ki yu kenn xamut bu xawaare jotee nag man nga faa joxe fukki junni man nga faa joxe ñaari junni man nga faa joxe téeméer junni man nga faa joxe million ngir lan tudd guñ lay te du dikk dara doo ca am lenn lu may ci nit ñay wax képp waaye nag fexe ba dencal sa bopp loo xamante ni boo lay tawee ak sa ndeyjoor fekk ko fa loolu ak jullit war a yittewoo muy dimbali miskin ci sa alal mu ne na ndax yow rafetaloon nga jëmale ci ki ñaawaloon jëmale si ci yow nit ki li ñu war a def ñun ñëpp mooy ku ñaawal jëmale ci noonu lu rafetal jëmale ci moom bu la nit waxee lu ñaaw delloo ko yow lu rafet te bañ lépp ci loxol yàlla sëñ tubaa dane kii tooñ du noppalu waaye kii fay tooñ du noppalu de réew mii wala adduna bii nit ñi ni ñu mënee tooñ ñi man képp koo xam ne bëgg nga lu lay def nga def ko ci fayu tooñ lay dëkk te doo noppalu waaye nee na kuñ tooñ bu muñ yàlla dana la fayul dana la fay kon kuñ tooñu muñal ngir yàlla te bàyyee sa bopp yàlla mu ne ndax yow jéggale nga ci ki la tooñ nit ki danga war a jiggale tooñ jëllale tooñ waaye ka ñaawal jëmale ci yow sax ci dëkkandoo ci mbokk ci xarit ci kum mën a doon yow rafetalal jëmale ci moom ngir yàlla ndax yow wax ngaa kii kii xëy na man di diw duma ko tuddati yow tudd ko foo daje moom nekk asalaamaaleykum wa rahmatullah loo ko war a wax ko loo war a séq moom séq ko moom lii nu yàlla diggal nañ ko def te bañ cee xool waaye jàpp ni su ma ko defee damaa ñàkk bopp damaa ñàkk fulla daf maa damay fayu loolu du yëfi jullit du yëfi gor nit day jéggale tooñ nit day fàtte tooñ yaa ngi dëkke tooñ yàlla yàlla di la jéggal yàlla di la jëlle leen kon nag ku la tooñ muñal ngir yàlla te gis nga ku la tooñ nga muñ yàgg yàgg yàlla dana la fayal kenn tënu bu la ci waaye bis boo jéemee fajal sa bopp nag mu bala seetaan na moom téye loxoom te su sa fay du sotti ndax defente rek lay doon budul yemi fenn ndax yar la sa doom képp ku jur doom ci lislaam yar ko yarub lislaam balaa ëllëg yomal xiyaam ngeen taxaw di ko la seen sa borom subhanahu wa taala ndax say dëkkandoo la la war ci xàq joxe nga ko ba say dëkkandoo gërëm la loolu lépp ëllëg suñu borom dafa koy laaj ndax bi nga réeree dara ci sa wàllu diine laaj nga ko boroom xam-xam yi wala ci sa wàllu adduna non de wala adduna rek lañuy laaj ñu ci jarino waye nit xëy ñu ne ko lu la tekk xëy mu ne mu ne masala mu ma ci diine dong day la bëgg ko mako xamal néew na léegi de waaye ku xëy daal ma nga gàddu ay dossier ba fex dal ngir wut fu mu déposé rek ba mëna a am xëyum aduna waye masala mi lay doll ci yàlla yitti wu woko te amoo ci soxla mu ni du xol suñu melo de ni mako waxé légui rek li ñuy def jàpp ni lu rafet lay suñ borom xoolu ko xol bi rek lay xool ndax xamoo nit mën nay melawoo ci kaw lu rafet loo xamante ni ku ko gis ne macha allah te fekk biir ga mara di tay moo tax suñ borom xol rek lay xool xol boobu muy xool nañ fexe ba ba mu rafet suñ borom wax ne saytaane mooy sunu noonu benn doomu aadama du noonu saytaane rek mooy sunu noonu kon sunu noon boobu yi moom la nu yàlla gën nu jàpp ko am noonu mu ni kenn ku ci nekk na baxal bis bi nga xamante ni ñun ñëpp suñ borom daanaa nu dajale mbooloo par mbooloo xarnu par xarnu te kenn du rëcc ñu taxaw ci kanam suñu borom sappe par sappe wa taqawmuuna bayna yaday rahmaan safa safa waqifuhum innahum mas'uluun kenn ku ne ku bëgg a jiggi ñu ne la eh taxawal amut koy gestu naan diw wala kii laa àndal ak kii diital taxawal yow lay laaj yow laa wër sa gënoon yow laa joxoon gis bu neex yow laa gisoon nopp yu forox yow laa joxoon ay tànk yow laa joxoon ay cër yow laa joxoon wërsëg lépp mu laaj la nan nga ci def wa taqra'una alkitaaba xarfaa xarfaa ku ne li nga doon jëf bi nga ganee adduna ba fi sa rox teqalikoog sa jëmm lépp mi ngi ñu dëxañ ci biir tër wa kullu insanin alsamnaahu tairuhu fi xunuqihi wa nuxriju lahu yowma alqiyamati kitaban yalqaahu manshura اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك عصيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها ولا تشر واسرة وسر أخرى وما كنا معطبين حتى نبحث رسول الله kenn ku ci nekk jàng ci téeréem xarfan benn araf par benn araf boo koy xool lii de maa ko xooloon bi sàngam jamono sàngam lii de maa ko déglu woon lii de maa ko waxoon fii de sa tànk fa jaaroon fii de sa pëy fa jaaroon lii de sa biiro ko defoon ba sa cir yépp mat li nga dund lépp danga ko waxaat wa tusaluuna ammaa hamiltum sirran wa jahran li ñu def ci lu nëbbu lépp ak ci lu feeñ lépp sunu borom dana dana na ko laaj wa yawma naxshuru lmutaqiina ila arrahmani wafda wa nasuuqu almujrimina ila jahannama wirda ñi nga xamante ni nag yàlla leen gënal seen jëm gënal leen seen alal gënal leen seen njaboot fu ñu toll di wattandiku lépp li yàlla gërëmul sax ci li yàlla gërëm ñu ne leen dugg leen àjjana yéen de du ngeen gis lu leen ragal du ngeen ko gékk laaj moon si saa ñoom xetuk sawara sax du leen xeeñ bu ñu leen di dugal ci bàmmeel day mel ni ñu ngi dugg ci pale bi gën a rafet ci suuf ñoom noonu la mel ñi ñi nga xamante ni bàyyi woon nañ lépp lu yàlla gërëmut ngir yàlla loolu la leen di yàlla fay ëllëg xetuk safaan ba du leen xeeñ waaye ñi nga xamante ni rey dañ doon tooñ yàlla ñépp ñu màng leen safaanu àggan di seen ro di seen rotuwaay kon nag mu ni moom sunu borom sama tëkko ngoog li ma leen dëëla ngoog